mbokk Touba ak li ko wër yéen ñi ñuy bàyyi xel ci chaîne YouTube bi di Biorahma ak ci www.biorahma.com di site internet boo xam ni daanaka dafay jaay ay produits bio naturel su dee yaa ngi dëkk Touba te soxla ko mën nga daal di woote 76 679 41 12 76 679 41 12 foofee. soo fa wootee ñu tegtal la moo ngi jàkkaarlook li nga xam ne moo di tapis rouge bi nekk Touba day woote 76 679 41 12 foofee soo fa demee am na poudre fenugrec am na graine fenugrec am na huile fenugrec am na gelule fenugrec am na poudre fenugrec am na frotté am na ñamako am na diw bopp am na ay savon pour lu jëm ci wàllu tache am na produit yoo soxla lu jëm ci wàllu bio naturel mën nga woote 76 679 41 12 kon yow mi dëkk tubaa te soxla produit Biorahma ci www.biorahma.com wala nga ñuy seetaan ci chaîne YouTube bi di Biorahma muy B I O R A H M A mooy chaîne YouTube bi foofee boo fa duggee loo fa soxla te dëkk Touba mën nga woote 76 679 41 12 76. 679 41 12 boo fa duggee ci site internet bi point www.birahma.com am na bitig boo xam ni soo fa duggee loo soxla lu ne te dëkk Touba mën nga woote 76 679 41 12 76 679 41 12